jafe jafe-jafe gu gën a mag askan wi dundu jamono yi nag di ñàpp kupp jën ci weeru koor gi xam ne nag borom kër yu bëri sax ceebu jën lañ ci tàmm ci euh, ruup ndogu mu nekk nag loo xam ne laal na Sénégal gi yépp rawatina Ndar Moussa Ousmane Diagne ak Abdou demaloon ñu bëggeet Ndar foofu nga xam ne mooy goxi nappkat yi xool nu fa demee nekk nii gis na nii jën moom ñàkk na lool ci réew mi loolu nag tax na ñu jëloon nag sunu tànk dem nag seeti nappkat yi lan moo waral ñàkkub jën bi fi nga xamee ni moom moo di ci réew mi rawatina sax fi nga xamee ni moom moo di ci ndar get ndar nag ban fa demee fekk fa nag nit ñi nga xamee nii ñoom ñoo di nappkat yi nekk nag ci fi nga xamee ni moom moo di ci plage bi ak tamit ci yenn mbaar yi nga xamee ñoo nekk wetu keru géej gi ñoom nag nee nu daal li ko waral rek moom moo di eh, cooroon la ñu nekk cooroon nag mu nekk temps boo xam ni moom neexu la dem nappi ndax gis na nii dafay ànd ak ngelaw loo xam ni gu metti muy def nag ay tourbillon ba tax na nag ci biir géej gi jën yi nag dañuy daw dem làqatu ji loolu nag moo indi jafe-jafe gi nga xamee ni moom la askan wi di jànkonteel ci jamono ji ci ñàkkub jën bi jën du bare nawet noor dafa am ak lool li ak cooroon ak nawet jën yi nga doon gis si noor yëpp gisoo leen ti kon nawet li nu baaxoon mooy bu mag ñi daan liggéey ba nawet jot danaa wàcc gaal mag yi sóob yu ndey léegi la ñu sóob ay gaal mag waaye foo gis jën mu dee pour catégorie laa doon wala ñakaa jàpp ñu néew la doon bu dee noora nag ñëpp a koy jàpp ak cooroon ñëpp a koy jàpp kon nawet ku la mën a wax ne li jënd dafa bare moom dafa la wax lu ma leneen rek waaye nawet jënd bare. yeneen nappkat ñoom wax ni mbir mi li ko waral rek moom moo di saxaar yi nga xamee ni ñooy napp nag fii nga xamee ni moom moo di ci réew mi waaye tamit am ci ñenn ñoo xam ne nii mbir mi ci ñoom la ndax dafa am ñoo xam ne dañu yore ay filet monofilament yi nga xamee ni du lu sax bàyyi doomu jën yi. benn jën booy seet nii wàccatul wàccatul fii ñun suñu trottoir bii ndar fii jën wàcc lu tax wàccatu xëy na am na ay saxaaru romanien yoo xamante ni ñoom si jéej di téye jën yu óor bu nekk jën yu bu waree wàcc si ñoom ñu téye ko jën wi di ñëw ci saxaaru romanien yi benn mu am foo xamante ni fii tamit dañ fi daan dugg óor bu nekk ñun gaal di fi dugg mu yomboon ci lu lool bu fi mu nekk nii sax xëy na am yombe mais daanaka mi ngi jeex cooroon daal moom si la jën dem ba pare goppa gi moom leewul mool yi dañuy ragal dem dañu bëgg ñaan yàlla Macky Sall dimbali mooy mu wax si l'essence yu ndaw yi wax si l'essence yu mag yi. ñàkkum jën bi indi na tamit yeneen jafe-jafe ndax ñi nga xamee ni doon nañu ay mécanicien yuy defar nag ay moteuru gaal ñoom nee nañu jamono ji sax gisatuñu kenn koo xam ne sax da ngay indi moteur ngir réparer ko. ataaye ah, affaire yi doxul ndax gaal demuñu géej ah, mais dina dox tuuti tuuti nag boo amee ay ñaari machine ñett liggéey bi jamono ji doxul dara mais nawet bi moo tax nag. ñàkkub jëm bi fi nga xamee ni nag moom moo di ci get Ndar mën na nii ñi nga xamee ñoo di nappkat yi nee nañu du ñàkk ni nag léegi mu jeex ndax sax nag beneen jafe-jafe sax mu ngi ci lalu si ndax kan ñoom bëgg na nañu licence de pêche yi nga xamee ni dafa war a jeex file fukki fan na ñu fexe ba renouveler que ngir rek mën a jàppale askan wi